Moustapha Latoudou, tudd Faye proviseur lycée de la Fosse waaw. li la grève bi mhm. la grève. Euh, euh, naa ni euh, gouvernement yu Sénégal dañoo ñëw yokk payooru fonctionnaires. Yok ko bu baakha banyak baax euh baña yok payoru jangale payoru yi ñom ñu gis ni seen payor yi dafa néew lool motax ñu dem grève bala ñoo laata dem grève demon nañu grève 2012 gouvernement bu bes am ñu teggandi loolu ñu grève 2014 am ay accord gouvernement ne len dina Euh, seen revendication yi dina ko dina ko safara ba mu dess yokk payor bi ñu ne leen euh, nañuy fayé fonctionnaire yi Sénégal euh, baxul ci kat yi donc dinañ wenen weneen façon buñuy fayé fonctionnaire yi bu boba 2015, nous avons fait ça. Donc 2015, 2016, 2017, 2018, le gouvernement a fait ça. C'est ce qui fait que les qui fait grève. Mais est-ce que vous avez une revendication pour vous Parce qu'en dehors de ça, vous avez une revendication de logement. Wow, les gens qui ont fait comme mënaguñoo le euh, système rémunération fonction publique bu bees nañu sen payor euh bu loolu wéyee revendication euh, par exemple di nga deug corps des administrateurs scolaires moy ñëpp ñu nga xam ni école muy directeur d'école muy principal muy censeur muy proviseur boo demain, réew mu France ñooñu dañuy dem ci ay école de formation ñu tagat leen euh, parce que jiite école du ko génn classe rek mën ko jiite euh, bu njëkka bo ñëwon ci lycée dafa doon am assistant social am animateur culturel am bibliothécaire ñoñu ñëpp amatul ci lycée bi donc seen liggéey yëpp principal bi Mba proviseur bi ay adjoint def donc dañ leen euh, aussi liñ leen di fay revendication bi corps des administrateurs scolaires bo nous réew yu ay États-Unis euh, réew yi anglais euh, nga école mais da gestion ak administration xam nga yow entreprise do jël benn way rek nga jox ko ku am formation nga kay jox donc moy euh proviseur lycée pour nga daan ka pour nga nek proviseur lycée dañ la war a former nga mën def sa liguey nu mu ware nga xam euh lila war nga mën di wuti partenariat nga mën. non Corbi, bi formation bi surtout formation bi surtout le syndicaliste yi di demander wow. Ben une revendication moi, fonctionnaire boo nekkee fonctionnaire ren boo toogee ñaari at da ngaa war avancer boo toogee ñeenti at da avancer boo avancer sa salaire yokk tuuti euh, gis Gisna ko 2003 la dugg ci njàngale bi avancé depuis 2003 gis na ñoo xamni tok nañu fukki at yo xamni avancé wuñ amna ño xamni tok nañu juróom-ñetti at yo xamni avancé wuñ amna benen revendication moy buñ la jëlé nga doon vacataire mba nga doon contractuel nga am sa diplôme parce que bo nekké contractuel da nga amagul sa diplôme professionnel moy diplôme fi ñuy tàggate kat yi boko amé ba paré dañ la wara intégrer fonction publique amna ño xamni euh amna ñu seen diplôme benn at juróom-ñaari at juróom-ñetti at.

parce que bo dégué 25 da ngay yaakaar lu lu reuy la ñom waron nañu wax ni ñetti junni lañ ci yok ñetti junni moy 25 euh boko tégué ci liñu amone ci li ñu kat yi amone 60 la ak 15 muy 75000 75000 ci gël tapé ki ben nek la mën la mën la mën louer et puis da ngay da ngay méngale kat un professeur de lycée. Je suis professeur enseignement secondaire. Je suis maîtrise de à l'école normale. Nous avons une administration. Nous avons maîtrise et une formation. C'est pas de 200 000, 150 000, 400 000. mérite. est-ce que ñooñu dañuy est-ce que ñooñu ñoom dañuy liggéeyal Sénégal loo xam ne jàngalekat bi defal ko man jàngalekat laa man yaakaar naa ni kenn liggéeyalul Sénégal loo xam ni liggéeyalu ma ko sama réew donc ñooñu lu ñu mérité rek war naa ko mérité. non tudduma magistrat ba léegi man gëm naa ni magistrat bi liggéey bi muy def dañ ko war a fay lu bare bare bu baax a baax dañ ko war a fay lu baax euh, fay magistrat lu baax terewul fay jàngalekat lu baax. mais mbir mi duñ ko duñ ko xoole noonu gis nga état. gouvernement bi ay fonctionnaire la am fonctionnaire yi dafa war a fexe ku ci nekk la nga yellool pour nga def sa liggéey bu baax a baax ñu jox la ko hmm? donc waruloo ne euh, euh, ñii fonctionnaire bariwuñu donc mën nañ leen yokkal ñu bariwuñu noo ñoom ñëpp ay fonctionnaire lañu ñoom ñëpp état du Sénégal mooy seen employeur état du Sénégal moo war tabax Euh, système mu rémunération boo xam ni ku ci nekk da nga cey gis sa bopp gis nga revendication enseignant yi yaakaar naa ni revendication yi ñëpp la waroon nekk am na euh, bërëb yoo xam ni Sénégal boo fa demee professeur u mathématique doo ko am ndax payoor bi dafa neew ñoom ñu dem seeti leneen am na jàngalekat yoo xam ni dem nañu CESAC am seeni diplôme ñenn ñi doon journaliste am seeni diplôme nguur gi moo leen di téye mais sinon dañuy jóge ci jàngale jàngale bi dem buuti leneen donc loolu nguur gi moo ko war a xeex bu fekkee ni dafa war a bëgg am ressource humaines yu yu qualifiées yoo xam ni ñoo war a tabax développement Sénégal dañoo war a def xaalis ci peeru jàngalekat yi pour que jàngalekat yu xarañ des ci njàngale mi. non man euh, man sama position euh, daf maa génne ci revendication yi euh, parce que fi ma nekk ni nguur gi laa fi nekkal donc revendication yi jàngalekat yi hmm? defe naa seen revendication mooy yokk seen payoor ba ñoom ñu mën a def seen liggéey gis nga bu ñu ko yokkul wax naa la léegi am na professeur yoo xam ni Euh, day manqué mooy professeur mathématique professeur philosophie dafa manqué professeur espagnol dafa manqué mais bu ñu loon fayoon lu baax ñoo ñu di def mathématique université dinañ ñëw jàngale ci am na leneen jàngalekat boo ko fay lu baax mais day jàngale fii jàngale école privée x jàngale école privée y jàngale école privée z du noppalu

Nous te amuñu liggéey privé bi gis nga pour que les yi euh, ñi am master mëna privé parce que dans privée par exemple bo école privée catholique mais ñom dañuy jël personnel hmm, di leen fay gu hmm. gëm emploi rapide la gouvernement parce que Euh, ay téeméeri téeméeri poste moom la ñuy libéré ci école privée yi ndaw yi jël ko waaw. waaw am na am na nag am na nag ñooy ñoo ñi nga xam ne euh, ñu ngi ñëw parce que jàngalekat yi euh, dañoo sës mais ñu responsable lañu Euh, man nekk naa proviseur euh, fu bëri ci Sénégal dëkk ak jàngalekat yi toog ak ñoom dund ak ñoom gis ñuy jàngale fête gis ñuy jàngale dimanche gis ñu encadré seen élèves yi am na ñu bëri yoo xam ne seen classe d'examen euh, bi ma xoolee seeni programme am na ñu bëri yoo xam ne tardé wuñu seen programme am na ñoo xam ne nag dañu tardé. amna na classe yoo xam aussi classe yu ndaw yi parce que bo ñëwé jàngalé da ngay jàngal ño xamni ñu ngi def terminal mais ñi def seconde euh ñu wa ñu ci bëri euh, seen programme yi euh, defuñu li li li leen war mais ñooñu dewen dinañ def première dewen jéeg dinañ def terminal gis nga ñun dañu wara tok waxtaan waxtaan jàng bi jàng bi mi ñoo ko bokk njàng mi du politique gis nga Sénégal ñun ñi ñepp li ñu gën a bëgg mooy suñuy doom bu ñu xëyee bu ñu xëyee école la ñuy dem moo tax ñu war a tabaxaat suñu njàng réew pour suñuy doom pour suñu développement dëkk hmm? pour ñu mën am ay ingénieurs yu baax mën a am ay docteurs yu baax mën a am ay journalistes yu xarañ waaw euh, ñoom ñu yëngal parce que man <laughs> ñoom ñu yëngal ñoom ñu yëngal loolu nag dañoo war a toog waxtaane loolu ah xool li jaadu ñu ne leen lii ci ñaari at ci ñetti at ci ñeenti at dinañ leen ko defal waaye buñ ko defalee dañuy signé pacte boo xam ni fukki at hmm, kenn du grève waaw fukki at kenn du grève ñu tabaxaat suñu njàng réew man defe naa loolu mooy yoon bi yoon bi mooy négocier yoon bi yoon wi du manipulation information naan yokkal nañ leen fukki milliards ak ñaar parce que bu boo waxee fukki milliards ak ñaar te fekk ku ci nekk juróom juneeg ñaari téeméer la cee am mbaa juneeg ñetti téeméer man de bu fekkoon loo xam ni mën nga wax ni baal naa la ko man de bu ñu mënoon yokkal ñetti junne franchement baal naa leen ko.